mais yow ñu ngi lay maa lay fay maa lay fay moom frère. tey lu ma waroon tey sa teewaay fii. yow li ngeen laaj nii nag lan moo waral. dama ko expliqué. fii kenn indiwu ma fi ah. li ma war laa def ñun ñëpp ay sénégalais lañ fii tey lii ñun ñoo moom kenn warul xaar ñu woo kenn kenn war ndax ñun ñoo ko moom ñun c'est pour nu les sénégalais si tu as un carte d'identité sénégalaise ah. tu vas pour célébrer ton victoire parce que ça c'est une victoire ça c'est une victoire l'Afrique de l'Ouest et du Nord du Sud tous les Africains ça c'est notre victoire. oui mais léegi sànq Pape Diouf mu yëgee kaw seen bi maanaam fang si yëpp jóg stade bi riir ah. di jóg loo gisee loolu. mais ñi ñii ay mélomaan lañ ñi nekk ci mbedd mi rek ay wax ñi nga xam ne xamuñu lu xew waaye ñi nga xam ni ñu ngi ci biir dëkk bi nekk ay nit xam luy qualité xam nañ ni Pape Diouf c'est un Nord. ñu ñoo nekk ci mbedd xaw ma ko ñu nekk ci mbedd mi laa nekk fa di ñu xam qualité maanaam mëri rondoo rek leen di dugal si mbir yi ñooñu garaal baal nañ leen mais ñi nga xam ni dañoo xam qualité qualité ay qualité way ak ay qualité nit Pape Diouf lañ bëgg. waaw. mu ngi dem événement bu mag mais en fait sànq ñoo ngi koy mu ni mu ngi album bu am solo. album bi moom presque pare na incha allah rabi xam naa léegi mu génn. ak Dakar ay na. waaw mais balaa dara de. Euh, le 19 mars incha allah. waaw xool xaabi di réeré. kii kii sama tata la. wallaay kii Adji Moussa la xàmmee woo. xàmmee naa ko baax. Ah, waaw seen musol moo. xàmmee woo waaw. merci yow.